ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi euh, seen mbokk seen xarit imaam Alpha Thiombane moo delluwaat jàkkaarloog ay mbokkam euh, lan moo tax mu ñëw xanaa fàttali mbokk bis bi nga xam ni euh, daan nañ ko amal at mu ne ci ndigalu xalif général de Ndut Serigne Jibril Thiombane bu kër Serigne Maam alfa Thiombane ana lan moo xew gàmmu gàmmu ban dëkk gàmmu croisement Màkka xëy ñu di ko amal le mais bi ñu jëm incha allah fas yéene ko def foofa ci Màkka xëy di ci woo nekk mboolem xalif général yi nekk ci biir Sénégal yépp waaye ñu jiital ci ndigalu Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général de Tijane waaye itam ñu teg ci xalif général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké ñu teg ci itam Serigne euh, euh, Bass Abdou Khadar ak euh, Serigne Moustapha Sy waaye xalif général bu piir Serigne Mansour xalif général bu Ndiassane xalif général bu Layène Khalif general bu chanaba ay khalif general bu keur Mam Ahmadu, njegen ci ties waye di ci wo mbollem Khalif general yi nga xamne ño fi nek di ci wo itam bokki talibe yi mbokki jullit yeb waye du nu itam sunu xarit monseigneur André Gay, mi nga xamne mo jité euh, euh labbe yi fi ci région de ties waye itam du nu sunu bokk yi nga xamne ñoo nekk ba ci kër alxaaji Abdou Aziz dara Cheikh Naama Sabou ñooñu waaye fàttewuñu kenn ñoo ngi woo ñëpp ci bis bi euh, di ci woo mboolem rajo bu fi nekk ak télé bu fi nekk rawatina nag télé bii ñu nekk booy Prestige TV ñoo ngi invité ñëpp ci gàmm googu le 13 mai euh, incha allahu képp ku yàlla woyfal sa tànk rek nga agsi fa يلا نجي يلا يبقى جامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك